ndakaaru tàng na waaye jaaykati ventilo bi gisagu ci boppam. Euh, daan na dox aussi na mais fan yi moom xaw na arrêté tuuti aussi euh, gis naa ne daal client yi moom daana seeraayu ventilo bi la ñuy wax. non ventilo yi nag sant ba ci yi daa bëri te kii am na environnement am na mooy yooyu nekk ci kaw aussi ñuy teg am na yi ñuy pointé am na. sande ba rek yi ñuy tag ci kaw inverna yi yooyu ñu ngi jar vingt cinq mille surtout tàngoor bi day jar trente mille. lii ventilo di cher yëpp nag moo tax ñu taamu ko moo gën a mooy cher bu ñu sañoon clim la ñuy am mais nga rek ku ci nekk sa tolluwaay. non ventilo la am. climatiseur bi boo ko amee climatiseur bi day consommé te courant bi mooy loolu. jaaykat bi nag mi ngi xalaat a bàyyi jaay ventilo te dem ci clim ndax ventilo yi itam dafa bëri bon ñu bëri dañ naan vente looyu daal da nga koy jënd aussi du baax baay ma dem wuti clim yooyu noonu noonu des fois dañ lay imposer la tey ngaa jaay clim wala ñëw di la laaj ay clim yooyu noonu franchement daal vente looyu daal dafa bëri léegi ay njóogaan maam yoo xamante nekk original aussi daal marque bi ñu fi gën a ràññee dafa xaw a cher moo tax nekkul ne même particulier ñoo xam mën a jënd quoi franchement bëgg naa ko de su ma si amee yoo xamante ne bu wër na ma su ma ko jëndee dinaa ko mën a jaay tamit aussi dama koy jënd teg ko parce que client moom il est roi lu mu bëgg rek loolu nga mën a dox quoi. fan yi dëkk bi tàng na lool looloo waral ku ne ngi xool naka lay féexloo askan wi ñu fekk fii ci marché Castor bu nu sañoon am clim waaye seen doole ventilo la tollool